jërë ngeen jëfati mbokk yi ci seen ni bokk na ci actualité euh, yi nga xamee ni évidemment mënuñu wax détenu politique te tudduñu ki nga xamee ni mooy suñu yaay euh, ko yoon tegee loxo ba léegi daanaka léegi mu def euh, ñaari at boole si ñuy wax jamono jii nii wéradiku gi yaramam xaw na sooxe bu baax a baax loolu waral seen Buzz tey ñëw seet si fas yéene am jotaay ak ki nga xame ni mooy waajuram di suñu waajur Mama Mati Mama Mati mooy waajuru ki nga xamee xamee ni mooy soxna Amy Dia moom la seen bés di am ak moom jotaay ngir fas yéene leeral évidemment li nga xamee ni mooy tolluwaayu euh, ki nga xamee ni mooy soxna Amy Dia ak it jëflanteem ak li nga xamee ni mooy yoon xanaa rek pour commencer ma maamati wax day wax dëgg yàlla yaay booy sonn nga lool yaa ngi jógee ci hôpital dem seeti sa doom ak yu demee noonu terewul may nga ñu ñu mën a am ak yow jotaay ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax maman Mati. jërëjëf. Mhm. bismillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Mhm. waaw man maay soxna Amy Hmm. waaw. macha allah alors bala maa ñëw vraiment ci yaay booy lu aju ci mbiru feebar beeg yu demee noonu dañu doon wax ni ñu ngi libéré ay détenus politiques ginnaaw gi am na sax ay information wala ay wax yoo xam ne mi ngi doon am ñu naan soxna Amy Dia libéré nañ ko ba finalement ci la ñu baree bari xam ni ndeke loolu amul ndax lu tax bokkul ci ñu ñu bàyyi xam ngeen lan moo ko waral. ah ñun de keroog yaakaaroon nañ trop ndaxte Cheikh Thioro Mbacké moo ko publié woon ci page ñun tam ñu dem fekk ko fa naka la ñu egsi rek ndax jour vendredi de di jour visite. Mhm. ma dem di ko visiter léegi bi ma dugg see rek mu laxasuma di jooy musuma ko seeti ba jooy mais keroog jooy naa ndax ni ma laxasoo di jooy naan alhamdulilah rabbil alamin mhm. ah moo tax ñun tam ñu gën a gëm ni kii day génn ma ne ko kon dañ la ko wax mu ne ah man kay dama xëy rek détenu yu bari ñëw dugg sama néeg naan ma félicitation da génn da génn. Hmm. waaw loolu moo taxoon nag ñu ñu gën koo gëm ba ñu yendu fa keroog vendredi ba ñu defee visite pare fa la ñu toog yendu fa yendu fa ba ay trois heures yooyu waa Pastef yi hmm. fees fa dell ñëw indil ñu añ bernde bu ne bendeel nañu ko keroog hmm. ñu continuer toog te sunu yi di génn di génn di génn ba ay vingt deux heures am na benn garde bu ñëw sax ni ma tey nga ñibbi ma ne ko man duma dem noonu bi ñu toogee baay vingt deux heures benn euh, oto pénitencier yi ñëw ñu am espoir ne xaj dina indaale këyitu ami mhm. léegi nag keneen ñëw ni ma ah am yi génnul de ñoom duñu génn tey mhm. mook Mati saar ñaar ñoom ñaar ñooñu ñooñu lañu ñibbee suñ yaakaar tas lool keroog ñu fa yendoo metti na ñibbisee ay vingt deux heures lañ fa jógee si kër gi mhm. ay ay ay ay onze heures yooyu le lendemain coono bi dafa ma jàpp dama feebar est-ce mu yaakaar gu tas lool lool lool te te moom gëmoon na ni day génn. parce que loolu la jàppoon ndax xale yi ñoo xëy suba daw dem néegam di ko félicité naan ko da ngay génn da ngay génn. booleeg ñun li ñu wax ni ami ami ja ci détenu yi génn la bokk. Mhm. ñun tam ñu gëm ko loolu moo taxoon keroog ñu yenn fa. d'accord alors ndax ginnaaw gi xëy na jotul bokk ci ñu jot a génn ay avocat wu mag wala jot ngeen am yenn ci ay leeral ci lu waral bokkul ci ci ñi ñu bàyyi. waaw amuñ ci benn leeral. amu leen ci benn leeral. waaw moom daal xanaa li ñuy dégg ci réseaux sociaux yi. Mhm. ñu naan daal yéen bu ngeen seetloo ñi génn ñëpp ay manifestants ay manifestants lañu mais ñuy jiim terroriste ak i commando gisuma benn nit boo xam ni bokk na ci te génn. ki hmm. la ñuy door a réfléchir sax xam ne ñii di ñu wax dëgg la. Hmm. waaw boobu ba léegi moom. Hmm. xamuñ ci dara ba ni mu defee malaise. d'accord ñu yóbbu ko alors euh, ci loolu sax feebar bu wax dëgg yàlla bu métti sénégalais yu bare bari la bi ñu ko déggee am nañu ci mbetteel ndax mbiru malaise boobu mën nga dikk ak ñun yaay booy ci nan la ko malaise bi daanee ak euh, dale ak kañ la woon. ñun de xamuñ ci dara tal na ko vendredi ba ba fanaal leen di ñun lañ koy door a de. Hmm. waaw yëguñ ci dara borom këram daal moo ma woo ni ma ami ma nga hôpital ñu dem hôpital seeti ko lundi boobu. te yëguñ ci woon dara lekk te am na vendredi ba samedi dimanche ba lundi ñun ñu koy door a yëg. dañ leen ko doon nëbb wala lu taxoon yéen yéen yëgul yëgu leen ko woon. ah man de yéeguma si dara noonu daal laa ko yëgee boroom këram ni ma amee dafa am malaise ba nga hôpital bu ñu ñëwee tam ñun ñëpp ñu daw ñëw. Mhm. nanguñ ñu dugg man kese la ñu nangu ma dugg. àndoon naa ak sama grande sœur ak moom ñaari sœuram mais ba tey nanguñ ñoo ñu dugg man kese maa dugg ba fii mu nekk nii su fa demee. Mhm. nanguñu kenn dugg man rek maay dugg. d'accord bala maa ñëw ci situation ndax malaise bi li ko sooke maanaam li waral mu mu am malaise bi jotu ko xam dafa toog rek dal ko wala dafa nekkoon ci angoisse boo xam ne xëy na neexul woon moo tax. moom kay nee nañu keroog à partir jour boobu nga xamante ni ci la yaakaaram te sanoon ci hmm. génn bi. Hmm. nee nañu fu mu toll da doon jël PCA di ko naan di ko naan xam nga nit ki xaw ma dafa angoissé woon daal. Hmm. ñu bari dañ ko teg stress bi daal mais daal. fi mu nekk ni ñun loolu dong lañ ci am ni suukaram dafa yéeg. bu ñu hmm. demee hôpital ñu ni suukar bi mooy yéeg ba kaat. Hmm. ñu loolu moo tax mu am malaise après nag. Hmm. ñoom nag ñu aussi yóbbu ko Abbas nag ñu ngi koy toppatoo bu baax foofu nag. d'accord ndax ginnaaw bi ko malaise bi daanee jot nga ko jot nga gisante ak moom ci hôpital. waaw toujours dama koy gis. d'accord chaque jour dama fay dem. ba tey jii fa laa jógee. dama amoon rendez-vous CTO mais dama génn CTO rek jubal ci ma mm-hmm. demee toog naa lu yàgg di waxtaan ak moom après ma bañeeku ñibbisi. alors maman Mati comme jamono bi jot nga gisanteeg moom ndax mën nga dalal xelu mbokk gi ak am di jàmm yëpp jamono ji ci situation wu tolluwaayu yaramam. ah mën de wax dëgg yàlla daal tànk newuñ ma wér na mu nga affaire jabet moom dafa doy waar tëb tëb rek am lool xam ne musu la dal musu moom bëgguloon sax sukar bu bari. Hmm. doom bi nga xam ne day def pâtisserie chaque fois su koy defal ay pâtisserie dafa naan am suukar de Mhm. affaire diabète dafa bari complication ba nga xam ni. Mhm. kuñ ko tudd rek sa xel dootul dal daal. Mhm. daal ñu ñaan yàlla rek mu génne ko seen jàmm ak salaam. amiin yaa rabbi alors malaise bi euh, ndax mën nañu xam yaay booy dafa am benn cër bu mu xaw a laal ba soo sooxeel ko wala tamit jaram jamono ji ban forme moom la nekkee moom. waaw moom jaar jàppul benn cëram. jàppul benn cëram xanaa jeexaay rek. na trop. jeexaay la ko def ko pesé xam naa nee naa leen est dina mat 40 kilos. jeex na trop. jeex na lool lool lool lool. Mhm. ndax jabet bi lu jiitu muy dem di jëflanteeg yoon maanaam muy nekk ci kaso bi daloon na ko. wala ci biir dara nekk en forme nekk ci jaamam. kon yaramam. di hmm. di liggéey di wàcc di ñëw musul am jabet problème mu santé kay wax dëgg yàlla du jabet du tension buñ ko buñ ko mës a xamal. Hmm. la première fois kay ma dégg loolu ci moom. Mhm. lu ko dal rek foofu la ko jëlee. foofu la ko dalee. ndax bi nga ko gisee jamono ji euh, ban vraiment ma Mama Amy Dia nga gis wante tamit lu jëm ci seen kàddu ndax jot na la wax feebar bi niveau bi nga xamee ne jamono ji toll na fa ci métit ak li mu yëg ci yaramam. waaw moom de xam nga jabeer rek moom. da mhm. ngay régime tey mu wàcc ëllëg ñu ni la yéeg na te warul wàcc ba mu ëpp warul yéeg ba mu ëpp. Mhm. feebar bu compliqué la daal vraiment compliqué na trop. jamono ji ban hôpital la nekk ak yan condition la fa nekk mi ngi Abass Ndao mi nekk Abass Ndao mhm. ñaari garde ñoo koy garde ñaari garde mel ni malfaiteur dafa waxoo ñu teg la métit bi yëpp métti na daal ndax condition de traitement yi aussi li ci war yëpp mu ngi am waaw li ci war yëpp mu ngi am ñu ngi koy toppatoo moom ñu koy toppatoo bu baax mhm. même ba mu nekkee prison sax vraiment foofu am fa woon benn problème parce que garde yi nekk foofu tamit nit loo nekk-nekk ci xat-xat tam du tee nga wax dëgg daal mhm. waaw garde yi nekk foofu ñu courtoisie la ñu àndal wax dëgg yàlla mhm. d'accord lu jëm ci accès bi nag pour yéen mbokk geek yéen ñi nga xam ne yeneen ay jege ñaaleem pour gis ko ci hôpital bi ndax yomb na yombul yombul moom benn nit rek man kese maa ko mën a gis yow rek yaa koy gis ci famille bi ñeneen ñi duñu nangu sëram sëram yi duñ ko gis xale yi bu ñu demee duñ ko gis moom daal man kese maa koy gis condition yooyu daal vraiment moo ci soof parce que nit tamit mhm. mu ngi feebar tëdd wala ngay bàyyi même bu ko jàmbur seet siwul tam nag bàyyi doomam yi di ko seet ak mhm. ay ak ay jigéen ñaaleem man sama grande sœur ak ak ay sœuram moom ñu mu bokkal léegi bàyyi fa nekk wax a wax ba sonn wax ni ma léegi boo génnee mhm. dinañu bàyyi bunt bi sa grande bi yër beneen petite sœuram bi keneen ki moom dafa gedd nee na man yëruma maanaam occasion ñu may ñenn ñi mooy ñuy yër yu demee noonu pas ñu am accès dem gis ko taxaw ak moom. déedéet. Mhm. man kay man kese maa fay dugg. yow kese yaa fay dugg. su ma duggee toog ak moom. ndax waaye ñeneen ñi duñu dugg. mais terewul yéen a ngi waxtaan mu ngi wax. mu ngi lay wax li mu soxla li mu mhm. bëgg ak situation mag ak yëpp. yëpp lu mu bëgg rek daf koy wax. Mhm. léegi rek def def toggal nañ ko ba petite sœur bi yóbbu ko. d' accord xam nga jotaguleen a xam jamono ji tamit ñaata temps la war a descendé gum fële ci hôpital wala. déedéet xamaguma ko nag xamaguleen ko ah, xamaguma ko nag. d' accord médecin yi ñu ci nangoo mhm. hmm. lu jëm ci doomam yi yaa ngi wax léegi na même doomam yi sax mayu leen accès pour ñu gis ko ndax depuis ñaari at bi ko yoon tegee loxo ba léegi mu ngi gisante gisanteeg doomam yi wala loolu tamit jotu leen ko ci am. dañu am droit visite mercredi. mercredi mercredi waaw dañu am droit visite mercredi. d' accord. xale yi moom grande euh, sœuram hmm. sœuram moo moo leen jur jox jox leen ko ñett lañu moom moo leen yore hmm. mu nekk ci seen responsabilité hmm. ay doomam lañu d'accord alors muy muy lu métti yaay booy gis nañu bi nga xamee ni yëg nañ ko xaritam yëpp xam nañu ah. xale yooyu parce que bu daan fu mu mës dem day ànd ak ñoom moo tax waa Pastef yëpp xam xale yi bu ñu leen gis dañuy daw laxasu leen wallaay Guy Marius Sagna keroog. wàcceel micro bi tuuti rek yaay. Guy Marius Sagna bu leen gisee sax da di xàmmee ay ñoom Habib Kane ñëpp a leen xam. Mm-hmm. ale yi moom ñëpp a leen xam parce que fu muy def day ànd ak ñoom. muy wane ni ku ku ku doon jël responsabilité am la si njabootam. waaw ku bëggoon njaboot la. Mm-hmm. démb rek euh, li ma tax a jooy kii kenn ku ci gën a mag nee na man daal jour bi nga xamee ni dañuy arrêté euh, veille bi ñu koy arrêté. Mm-hmm. daf ñu Eh, nandi mhm. nee na yéegal ñu ci kaw defal ñu afra suñu bopp ba mu ba rafet mu toog di waxtaan ak ñoom le mu mel ni daal dafa doon tàggatook ñoom le lendemain lañ ko arrêté mhm. ñoom yenn sa yi dañuy xalaat loolu dañuy jooy ndax kaddu yi mu doon waxtaanee ak ñoom wallaay fee mu nekk nee sax lu mu fa gis day jënd di leen yónnee mm. mhm. dafa nap ci ñoom dafa nap ci ñoom mais muy muy lu métti yaay booy bu weesoo coowal politique ak yaramam lu diis la tey ñu ne bari na ay ndaw ñoo xam ni jàpp nañ leen bokk na ci ñi ñu gën a chargé ci yoon sa doom bokk ci muy soxna Ami jamoo mu am njaboot ñu tëj ko ndax coowal politique. ci loo xam ne vraiment léegi mu jege ñaari at. lu métti la yaay booy. métti na waaw. métti na ba ci kanam yàlla métti na lool lool lool loolu moom métti boobu ku mu daloo rek mënuloo ko xam. Mhm. xëy xëy coppati sa doom yóbbu lu mu def ñun la bu demee dina ko xam juge ku mu woo da wuyu ñu ànd dem hôpital euh, bu timis mhm. avocat yi ñëw ñu ni dem leen ba ëllëg ñu dem ëllëg 9h ñu egg fa di xaar ba midi muy doore ñëw ñu koy entendre mardi mercredi mardi lañ ko arrêté entendre ko mercredi jeudi vendredi ñu defee dem jour boobu moom duma ko ma a fàtte métti woon na trop parce que pour man mhm. lii du dara dañ koy entendre rek bàyyi ko mu dem mais mhm. bi ñu ko defee mandat dépôt moom keroog métti woon na trop trop jamono di dem di dem ba ñu ni léegi mu mat ñaari at bi ko yoon tegee loxo ba léegi amagu leen dara lu leer loolu tamit boo koy xalaat xëy na dina gën a nekk lu gën a métti. wallaay mënoo ci dara mënoo ci dara ah, tabaski. Mhm. la woon dañuy tabaski ba am ñaari fan deuxième jour ba lañ ko yóbbu ba tabaski dellusi na bay bëgg a dellusiwaat kon yaa yàgg na trop. Mhm, yàgg na yàgg na. ban euh, situation nga koy fekkee boo ko boo ko demee seeti ko maanaam mu ngi dalal sa xel wala tamit vraiment jamono ji mu ngi ci angoisse boo xam ne neexu la neexu la nettali xam nga ku feebar moom rek moom mhm. xëy benn jàngoro ju mel noonu dal la neexul ci xol mhm. neexul ci xol mhm. ndaa elle brave nag ku mën a muñ la doo ko gis mu jàmbat wala mu lamante wu du def dara moom daal ña nekk sax dañuy wax discipline am. Mhm. kenn du ko dégg ci dara. kenn du ko dégg ci dara ku discipliné la foofu mu nekk ñëpp euh, garde yi fu nekk foofu yëpp ko ko témoigné la ak moroomu détenu yi. Mhm. waaw. Mhm. bariwul dugg dugg sobul. fu ñu toog lay toog jàpp njàmbaram. xëy na nag seen anti boobu mën na ko jox. jabet bi. Hmm. ban yëg-yëg ngay am yaay booy tey sa doom di jëflanteeg yoon mais li ci gën a métti yàlla def na mu feebar mais da ngay dem hôpital sax fekk ñu koy garder yaa ngi koy wax sànq ci say biir wax. Mm-hmm. mel ni koo xam ne dañuy garder ku jubadi wala ku def loo xam ne jar na ko ci biir réewam loolu aussi lu métti la ban yëg nga koy am. boo fa métti métti rek. métti mm-hmm. rek saa ma demee ba ñëw moom damay stressé ba nga xam damay ñëw tey sombo bi day métti ba mu mujj dama jënd garab rek. Mm-hmm. moo tax ma yéex a ñëw ci yéen sax. dëgg la dëgg la sama bi metti torop. sa sa xol bi jeex te mënoo ci dara. d'accord ñu ngi doon yaakaar ni xëy na jëflanteeg yoon ay avocat yu baax bu ñu amee wala topp si topp yenn procédure judiciaire yi xëy na dina yomb lu jëm ci doxalinu avocat yeeg liberté provisoire ak yu demee noonu ndax yéen a ngi koy topp wala depuis mandat dépôt bi ba léegi yéen a ngi toog di déglu. ba ñu depuis mandat dépôt bi daal am na fa un an et plus ñu door ko yóbbu si juge Mamadou Seck. mu hmm. taxaw ak moom mu entendre entendre wax lañ ko laajoon police centrale rek la ko laajaat nee nañu da ngeen bëgg a taal réew mi mu ne man de benn transfert sant mille laa mos sa jot jox la transfert ndax Pastef noonu lay doxe ndimbalante parti ndimbalante la transfert la tel somme joxal ma diw nga dem jox xamoo nu mu koy def waaye affaire bomb ak yooyu ñun xamuñu ko. ñun hmm. daal dimbalante la ñu xam saa yu ñu ko loolu wooye loolu la leen di laaj man loolu la leen di wax. ay terrorisme ak ay mhm. taal di dëkk ak yu demee noonu ay mhm. jëndaay bomb ñun xamuñu ko mhm. waaw ku am problème ci euh, Pastef boo ko dugalee ci groupe bi ñëpp ay cotiser dimbali la dimbali la ndax famille la waaw famille la parce moom ku leen bëgg sosal loolu dina yomb parce ñoom loolu la xam dimbalante ci lu wér ci lu wér Mhm. alors accusation yi tamit lu diis la yaay booy tey sa doom nga yar ko mu màgg ak yow nga xam éducation bi nekk ci moom si julliteem ci bëgg ay waajur bëgg njaboot ñu xëy ci réewam ñu tuumaal ko lu mel nii boole ko ci di ko ci topp ci yoon d'une façon boo xam ne bu métti la loolu boo koy gis sa doom ak charge yi ñu teg si koom ban yëg-yëg ngay am. moom kay comme ni ma la waxee rek. Mhm. xol bu jeex te mënoo ci dara nga wàkkirlu rek fii teg yàlla di xaar mu teggi natt bi. waaye mënoo ci dara lu dul sa xol jeex. Mhm. nga nekk ci coono. chaque mardi nga daw dem visit chaque vendredi nga daw dem visite keroog jour tabaski bi mu jotee tabaski daaw. Mhm. dama ko ñeewante. dama ne xale yi man taluma sax sama waaye lu ngeen jëkk a génne rek. defal leen ko gaaw. avant midi yegg naa prison ba. yàlla suturaal ma génn rek am taxi. Mhm. taxi bi xaar ma mu prison bi yóbbul ko yàpp bi ñu ko lakkal. ndax bëgguma woon mu nekk di lekk seen yàpp nag yooyu ñu leen di defal mm, mm. waaw ma ne garde bi je suis de tout cœur avec elle waxal ma ko loolu est ndax ñeewante woon naa ko trop ñeewantal oh, muy lu métti ban ban ban état d'esprit moom nga koy fekkee à chaque fois nga mais elle est courageuse mm. moom elle est digne bi ñu waxee ay affaire takkal ay bracelet électronique mu ne man duma jaam kenn duma yeew muy lu metti soxna Amy ja yaakaar naa ñi dëkk ak moom wax nañu njàmbaarteem ak bëgg réewam wante tamit bëgg njabootam yaayam aussi lim ko seedeel rek doy na coowal politique lu mënti am loolu la ñuy wax bokk na ci ñi nga xam ni moom la ko yoon di toppee ànd ak donte ne am na ay accusation yoo xam ne moo ci nekk mais yaakaar naa ni waajur la deful ci réewam loo xam ni vraiment jar na tey réew mi war a am taxawaay bii ci moom Euh, suñu yaay nag suñu mama mati mooy yaayam moom lañ doon am ak jotaay xanaa rek yaay booy di la encouragé waat lu métti la ah. lu metti la bu daloon keneen ci koo xam rek dafa métti rawatina bu dalee ci sa njaboot encouragé bu baax a baax xanaa fi may jeexalee rek fi mu toll nii mu ngi waaj a yàgg hmm. euh, yan voie nga jàpp ni jamono ji moom ngeen yaakaar ni war ngeen fa mën a jaar ba yoon soit mu may ko liberté provisoire wala mu teggi daan yim teg si kawam yàlla rek comme ni ma ko yàgg waxee rek yaakaaruma yàlla moom laa koy di saa yàlla na ko teggi hmm. yàlla rek nga ci yaakaar fi mu toll hmm. ndax yàlla yor lépp mooy boroom jaam yi wallaahi maman ñu ngi lay encouragé di la masawuwaat bu baax a baax di di ñaan yàlla wax nga ko moom mooy tege nattu te mu neex mu naq di léeg-léeg waxtu bi mu ko bëgg jeexalee rek la koy jeexal yàlla na ko yàlla jeexal. amiin yàlla may la xolu muñ ba nga massa massa yaay booy. je pense que lu tiis la lu tiis la message bi ñuy lancé rek mooy li nga xamee ni jamono ji mooy la xew ci réew mi ñëpp xam ko yaakaar naa soxna Amy Dia ak képp koo xam ne rek jàpp nañ la ci coowal politique quel que soit alpha yenn charge waruñ ko teg nit gratuitement même bu fekkee ni sax dëgg la yenn chargé yi waruñ ko tegee nit gratuitement rawatina ci loo xam ni coowal politique moo ko am ndax société yi ñuy dund dafa am nu mu baaxawee di nga teg nit natt boo xam ni donte ni dund na ko wala attan na ko wala yenu na ko mais amaana yaa ngi yàq téeméeri nit ci gannaawam téeméeri nit ñoo xam ne ñu ngi ci gannaawam yaa ngi yàq seen dund. kon yaakaar naa jaadu na ñuy bàyyi xel njaboot gi rawatina waajur yi suñu mamaamati tey yaakaar naa. wax dëgg yàlla ñëpp bëgg nañ mu yàgg fi te ànd ak wér yenn nattu yi boo ko tegee doomam day mel ni moom nga ko teg dafay métti ndax ku ne xam na ni waajur rawatina boo yaree sa doom inculqué ci moom ay valeur ku ko gis xam ci moom jullite ñu xëy di ko tuumaal yenn yi ba teg ko ci loxo ci loo xam ne lu yàgg la loolu dafay métti bu dul soxna Ami Ja rek di waajuram dafay métti si njaboot gi donc kon ñu ngi ñaan yàlla mooy borom lépp yàlla na yàlla teggil li mu teg Ami Ja ak képp koo xam ne rek yoon mu ngi la koy topp lu métti la yaay booy lu metti la waaye dañ lay ñaanal yàlla yow tamit yàlla gën la may xolu muñ yàlla may la nga gën fi yàgg lool te ànd ak wér lu diis la waaye ñu ngi lay massawu bu baax a baax yaay booy jërëjëf jërëjëf massa massa beneen jotaay ak beneen invité sur la chaîne des leaders jërë ngeen jëf merci ko